misaal te e, du lu ngeen faral dégg ci ñun tey dinaa dem li nga xam ne mooy li gën a foor ci ci diine ma jëleen ci misaal ci alquran suratul tahrim mu wax ñetti jigéen ñetti jigéen ñaar ñi di royukaay ci képp koo xam ne danga bëgg a samp xeex xeex goo xam ne dëkk la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 seeni soxna dëkkoon ak ñoom te weddi woon mission bi leen yàlla joxoon weddi woon digg yi nga xam ne moom lañ doon woote ñoom moo tax mu mujjantal gi ñaaw na ndax e, xeex lu dul xeex dëgg ak bëgg a samp lu dul dëgg su dee ci wàllu nuux ñëpp gis li mu doonoon su dee ci wàllu lóot ñëpp gis li mu doonoon te ba léegi muy woy suñu jamono muy lu jëm ci ngóor jigéen ak ñoom seen moo tax keroog bi mbugal gi ñëwee yàlla seetul ni ñii jabaru yonent lañu wala ñii jabaru ñu ay ñu ñu baax lañu da boole ci mbugal gi ci wet ga mu joxe ñaari exemple yu ama am solo mu dellu si ne wa daraba allahu matal lilladina amanu mraata firaun id qaalat rabbi ibni li indaka baytan fi ljanna wa najjini min firawna wa amalihi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 naa ni fii ci alku ak ci toroxtaange lay dëkk waaye maa ngi lay ñaan yow sama borom nga tabaxal ma kër bu gën ci kër yi fële ci àjjana te nga sobe ma te nga muccal ma ci firaaw la ay jëfam te nga sobe nga muccal ñi nga xam ne ay nitu euh, ay nitu lu dul dëgg lañu mu yeggali nag ci ñetteel bi wa Mariama Mariama yi nga xam ne mooy yaay ci isa bnu maryama ci jésus mu ne wa maryama binata imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubihi wa kaanat min alqaanitiin mu ne ma jox leen dernier exemple muy maryama nga xam ne moom ci boppam fegoo fegu woon na ci boppam téewoon na boppam ba yàlla ëf li muy ëf ci dafa dëggaloon li nga xam ne mooy waxu boroom bi dëggaloon ay téeréem moo tax yàlla boole ko ci ñi nga xam ne elle fut di les dévoués kon ay exemple nga yoo xam ne yu ama am solo la di jigéen